asalaamaaleykum mbokk yi tey la ajjuma fukki fan ci saabaan muy weeru baraxlu ci atub junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo ñetti fan ci weeru mars ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett fukki fan bokkul ci lim yu fàtt yi lim bu rafet la kon tey ci ajjuma ji rafet na li ñu ci gën a taamu mooy ku ca daloo ñaanu bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci yuñ si bi jikko yi ak jëf yi ak bëgg-bëgg yi ak jàngoro yi allahumma inni audu bika min munkarati al axlaaqi wal amali wal ahwaai wal adawa allahumma inni audu bika min munkarati al axlaaqi wal amali wal ahwaai wal adawa xadis bis bi yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na maa ngi giñ ci ki nga xam ne sama bakkan mi ngi ci yoxoom bu ngeen dul woon def bàkkaar sunu borom dina leen fi jële indi fi aw nit ñuy def bàkkaar di ko jéggalu mu leen di jéggal xadis bi muslim nettali na ko qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam walladi nafsi bi yadi law lam tudnibu la dahaba allahu bikum wala jaa bi qawmin yudnibun fa yastaxfiruuna allaha fa yaxfiru lahum rawahu muslim waxtu julli yi suba waxtaan dana tax bi six heures huit juróom benn waxtu yu tegal juróom-ñetti simili tisbaar treize heures quarante six benn waxtu wu tegal ñeent fukki simili ak juróom ñeenti waxtu yu fukki simili ak juróom benn timis dix neuf juróom-ñaari waxtu yu tegal fukki simili ak juróom-ñaar gee vingt heures vingt huit